alhamdulilahi euh, rabbil alamin ginnaaw bu ngeen nuyoo sant leen bu baax a baax ànd beeg ñun Aladji Malick TV am na solo yàlla na jëm kanam tey nag njàngat mi ñu andi ci loo xam ne am na ci Nigeria waaye nag foofee dërëb senegal rafet na fa lool ci li nga xam ni mooy diine islam bi nga xam ne kii di Baye Niass yokk na ko ba mu dem ci Nigeria bari na nag loo xam ne daanaka ñi ngi ko fa doon màggal màggal googee nag ma nga amee woon ci benn stade boo xam ne dinañ ci dikk tur stade wa ak nit ñi waaye quelques images yi ñu leen wan imance la yoo xam ne yu mucc ayib yoo xam ne diine bëgg na ko teyit diine islam rek moo mën a joxe image yu rafet yi moom moomee ko teeti ki ngeen gis ko noonu ñu bàyyi leen ngeen dund mbégte mi ci moom ñu dikk nag daanaka yaatal li nga xam ne daanaka mooy njàngat mu am solo bu baax a baax yal na yàlla dolli jàmm ci àdduna wala ngal kàpp yàlla na yàlla suturaal Sénégal beneen bi mi ngi noonu ñu ziar Alaaji Malick mi nga xam ne daanaka euh, kilifa la ci biir dëkk bi tey di nekk koo xam sponsor la ci kër gi ma nga no fan euh, nga gis kenn ko ci weeru février tombeeg démb fële ci Abidjan Abuja Abuja nag mooy capitalu Nigeria nga xam ne daanaka fi mu toll nii leeraay gi am foofee gis ngeen ko bu baax a baax lépp nag ngir Cheikh Ibrahima Niass mu sell mi nga xam ne daanaka ab juddoom di juddu bu rafet boo xam ne moom la euh, ñi nga xam ne mooy jullit yi sax la ni mën a wax waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ay tijaaniya ñu mën cee ràññee alfayda ak ñoom ñëpp nga xam ne daanaka moment la boo xam ni euh, bu nekkoon moment yoo xam ne ay ñaan la fidèle yëpp nag à travers le monde entier nekkoon nañ foofee ca stade bi mu nekk loo xam ne lu mucc mucc ayib la euh, loole tamit nekk loo xam ne luñ mën a bàyyi xel mu ngi noonu ni leen ko waxee rek nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mahani wala Mouhamadul Mahi euh, Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne indi na fa délégation boo xam ne délégation la tamit bu mucc ayib car macha allah ñëpp nag dajaloo euh, fële nga xam ne moo nekk ci stade bi nag fees dell nag stade boobee lépp nag ngir ay ñaan yoo xam ne jagleel nañ ko àdduna wala ngal kàpp loole nag ni njàngat boo xam ne tey daanaka bokkut ak liñ daan jàngat waaye nag dafa nekk lu am solo loo xam ni bëgg nañ di ko participer